asalaamaaleykum mbokk yi comme ni ngeen ko gisee noonu yéen a ngi gis champion booy ñaa mi ngi noonu di si fii ci cosaan ñu war a amal face to face bu am solo mu war a dox digganteem ak bo komba Tine combat boobu la war a am incha allah le 19 décembre champion ngi noonu ci oto bi ànd ak ñi nga xamante ne bii ñooy waa Pikine maa ngay gis Assane ca wet ga li faral di wax rek mbokk ndey koy jur Mansour maalawa nga noonu ca kanam borom sinap yu leer yi champion gi noonu maa ngi gis ñu sotti xorom su bari sa kanamu oto ba cay làmb làmb doy waar asana nanga jiitu yor benn kaan oto baa ngay gën a jege ma ngay gën a jege ma ngay gën a jege ma bunt léegi mu oto baa ngi taxaw buntu cosaan suur benn soccu xaw ma soccu daqaar la xaw ma soccu miimaa la xaw ma li nga xamante ne bii moom mooy soccu soccu ngi gis la mais Mansour am na lu père Bourkhane di wax ak moom am na lum koy dee am na lu ko père Bourkhane di wax champion baa nga noonu ca biir càppa gi xale pikin bi borom cinal fondeli ay ca mbër waaye delloo jaar bu baax na nga waar lépp ay ca Mansour ay ca Mansour mbër may ñu deux minutes rek avant ngay dugg ay ca mañ taxawal nii. salaamaaleykum chef ñu ngi jaar. ay ca mbër ñu ngi lay jaar lépp jàmm. sant yàlla bu baax a baax. alhamdulilah. ñu ngi jaar wér. yaa ngi si jàmm. waaw ñu ngi si jàmm ñu jamono bi lan ngay yëg. sant yàlla rek. waaw sant yàlla ñu ngi si jàmm dañoo ñëw fii contrat moo ñu fi indi. Mm. ñu ñëw di ko remplir waaw ci jàmm ak salaam waaw. mën nañ wax ne làmb ji fi mu toll nii jour ji mooy set euh, fan la fan la fan la fan la état bi toll fi mu toll nii. jàmm su ñu sant yàlla bu baax ñu ngi ñaan suñu borom dimbali ñu ñu yeggee noonu ci bis ba. ñu ñaan suñu borom may ñu ndam ci barke mais ñu ngi ci jàmm ñu sant yàlla bu baax. ñu naan aussi suñu adversaire mu defal ko jàmm ñu ñëw ci bés bi incha allah ñu fexe bëggal amateur yi ci jàmm ak salaam nag incha allah. face bi mujj ñu gis ñu gis euh, Boy ñaa ba nga xamante ne bii dafa dafa ñeme Tapha Tine keroog lan moo xewoon xabtal la wala lan la non làmb la rek moo neex rek incha allah jàmm ci yéen chef mi ngi ziar open press mardi la incha allah ñuy jox ñëpp rendez-vous incha allah mardi ah bayaaru Croix Rouge suñ ko doon am habitude di ko defee. di woo message ngay wax xale yi di woo yëpp ci jàmm ak salaam nag en tant que ambassadeur de la non violence mais aussi en tant que mbër comme mbër yëpp espoir national la ñu préserver ko defar ko mu rafet ci jàmm ak salaam jaajëf. jaajëf. very moment. Thank you. suñ borom mu lafal ñu cat ba ñu continuer ko ci jàmm incha allah ñu bëri ko ci jàmm suñu borom defal ñu dal incha allah. sa adversaire mu mel ni am na lu ko métti trop combat bi day jooy mel ni am na loo xamante ne mu ngi métti ci xool bi am na lu ñu ko def daal loolu noo koy jàngatee. waaw làmb la rek di ko wax ne làmb rek làmb moom dara yomb xam nga parce que combat bi def na boo xamante ni yaa ngi bàyyi sa njaboot ginnaaw bàyyi ginnaaw di liggéey loolu rek yomb leneen leen ñëw tegu ci xam nga di wax ni rek làmb sport rek kafaak ree la essentiel ci biir géew moom man ak moom ñoo fay ne bu amee lu ma téye loo xam ne lu ko métti la jëmale ko ci man moom bu abi rek mën na ko wane foofu daal ci biir géew bi waaw moo am solo quoi allah aussi tey ñu gis ni mbëru bawal yu bëri yu doon bëri tey amuñu ndam rakkam di kéwal tey dafa perte combat am digganteem ak ñàkk jariñu xalaatoo ne loolu dina doppe bawal bawal yi ci combat bi ñu jëm waaw ndam moom yàlla moo ko yor yàlla suñu borom moo ko yor ñu ngi koy ñaan bu may ñu ko ci barke Cheikh Sall bu barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye tamit sport noonu la quoi ñoom daan nañ bëri di am ndam xam nga bu ñu ñàkkee tamit suñu borom moo dogal loolu la l'essentiel daal damay lancer appel ci monde làmb yëpp suñu sport national la làmb ñu préserver ko bu baax a baax ñu sàmm ko bu baax ci yar ak teggin ñu jàppale ñu ñu mbëri ci non violence incha allah di ci profité waaye di wax ne ñu ñooy dalal waa Bawol yi di wax sama supporter yëpp ci jàmm ak salaam rek di dalal leen xam nga liy xew nañ ko bàyyi ma Tapha ñu jëflante bu baax incha allah. ñu bëri ci live Instagram yi ñu jàpp ni combat bi nekk na combat boo xamante ne bu ci Tapha Tine téye boppam booy Niang mun na ci am ay jafe-jafe parce que jàpp nañ ni itam Boy Niang mbër buy aspiré adversaire am tey bu Tapha Tine téye boppam est-ce que booy ñaar dina ko jëli. non man man weesu naa fi mu amee jafe-jafe ci làmb man mbër bu ñëw ak mbër bu dem ak mbër buy taxaw yëpp laa yemale xam nga mbër bu ñëwee woon nga ko jëli mbër bu taxaw woon nga ko jëli mbër bu ñëw mën nga dajeek moom làmb la mu làmb la da rek xam nga te bu ñu wuree bëre xam nga dina neex parce que moom xam nga jàpp naa ne bërekat la te man tamit bërekat bu ndaw laa xam loolu yëpp amul solo damay dégg seen laaj yi ñuy wax ñun gars yi dama bëgg suñu laaree maag tafaat ñu pare moom lu làmb ñu gën a xam kan mooy Boy Niang loolu laay ñaan suñu borom te loolu laay wax moom làmb dama bëgg man ak Tapha bu ñu jëflantee ñu laale pare bu ñu jógee ci kàttan suñu borom moom ñu ndam làmb wala làmb ñu gën a xam Boy Niang ñu gën a xam Boy xam nga ba ma bëree Sa ba pare ba ma bëree Sa Thiès ba pare yàlla dafa ma may ndam ay journal daw fekk ma ci géew bi te boobu réaction à soo la xam nga lu ma wax rek dafa ne ci man man leen lu ñuy gën a dem ñu gën a xam Boy Niang dama bëgg suñu bëri am ak ba pare waa làmb ak ñi dund làmb ñu gën a xam kan mooy Boy Niang loolu mooy suma rêve ci kombaa bi maa ñaan suñu borom mu yor ndam nag mu may ñu ndam insha allah du ma la tardel yaa ngi ñëw dem léegi léegi mais question bi ma lay moom mooy Boy lu ko gënal ci kombaa bi lan nga bëgg a Tapha defal la ko ci combat bi ci combat bi da bëgg mu ñëw lan nga koy ci combat bi ci combat bi bëgg naa xeex ci combat bi bëgg naa bëre ci combat bëgg naa mu ñëw bëgg naa mu xaar ba lu mu bëgg def rek moom ci xeex nga bëgg mu jeexee wala ci bëri nga bëgg mu jeexee. waaw laa moom yàlla rek suñu borom moo xam muy jeexee. mais ñun moom booy waaj da ngay waaj xeex waaj bëri. foo xam boo ñaa xam niveau d'athlète bu ñu nekk ñun ak ni ñuy liggéeye dañuy xeex bëri rapidité vivacité explosivité lépp lañuy liggéey. Mm-hmm. bu ñëwee ci géew bi nag géew bi rek mooy mooy mooy mooy tracé bu géew bi tracé lu mu tracé rek ñu ànd ceeg moom incha allah bu soobee yàlla mais ñu ngi koy ñaanal moom mu ñëw ak jàmm supporter mi deen wax ñu dalal seen xel parce que jàmm ak salaam moo fay ne Pikine lañ dëkk mais en tant que pour la non maa ngi laase ñëpp ci jàmm ak salaam ñu dalal leen ñu bëre bu ñu xeex bu ñu xuloo bu xeex di am bëre di am jëflante di am ak tafaatin la ñu bàyyi ko ñun incha allah waaw jàmm ci ñëpp nag am ah, incha allah jaajëf waay jaajëf. open press moom open press mardi la. waaw boo leen ñëwee mardi.

waaw le 19 waaw chorégraphie jàmm ak salaam rek xam nga moom bagage yaa ngi fi moom am bagage yi moom ngéwél gi bagage du jeex mais lépp ci jàmm ak saraam mais li ñu gën a ñor ci bis bi moo suñu moom defal ñu ndam ñu ngi koy ñaan suñu borom incha allah ci jàmm. waa PPV waaw ak fan Serapis. waaw <laughs> comme dab rek bu jeexee jeex na incha allah jàmm ci ñëpp jaajëf gars yi. jaajëf jàmm ci yéen jaajëf.